di nuyu ñépp ñi fi teew am mbégte ci li ñu fi gis mu rafet lool daal seetal yemb monsieur le ministre d'État représentant monsieur le président de la République monsieur Mbaye Ndiaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay dalal fii ci Kees ñu ngi l'ensemble des ministres qui sont à côté de monsieur Abdoulaye DG AIBD ñu ngi nuyu di gërëm di sant bu monsieur Abdoulaye vous avez réussi à réunir ici département de Thiès ñëpp ñi ngi fi say xarit say xarit yu wér a wér jóge fii ngir sargal monsieur le président de la république président Macky ku ko sargal sargal nga ku jar sargal

Monsieur le Président de la République, sans doute, vous verrez ces images, de belles images, de jeunes, de femmes, d'adultes, engagés pour vous accompagner. À chaque fois que vous le voudrez, nous serons à votre côté. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir exprimé des profondeurs de notre caisse un jeune, un jeune nommé Abdoulaye Gueye. L'espoir est permis. Je pense qu'aujourd'hui, tous les caisseurs ont vu, tous les Sénégalais ont vu, et le monde entier a vu la mobilisation exceptionnelle de ce jour. donc mbégte lañ ci am Abdoulaye Dieye ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant ñaan la wër ñaan la gudd fan ñaan la succès ci li nga xam ni président dénk na la ko maa ngi gërëm ñëpp ñi fi teew ndeen mbégte am na mbégte am na jërëjëf